waa ji di wax naan un hectare dix mille euh, maanaam mille la xamul hectare ñaata la li mu bëgg a ci wàllu njëndam hectare xamu ci dara jeune boobu président di wax ne am na fa hectare am yooyu man jënd naa foo xam ne digganteem ak taliba motul quatre cent mètres trois cent mètres daal xam naa ne ci ay war a toll ba ma koy jënd maa ngi Moustapha Diouf ànd ak ku ñuy wax Alioune Guèye gaañoo yal na ko yàlla yërëm ak ku ñuy wax Sall Diop mu ngi dund yal na gudd fan dafa nag moom bu dee tamit nekku ci ndax sama doomu sama doomu nijaay la waaye eh, maa ngi jënde woon hectare boobu six cent mille te fii président bi wax ne fa la jënd moo gën a sori fuuf ndax man fi ma jënd da xool tali ba mën a wootee waa tali ba jot la ñaareel ba fi ma jënd ci croisement Josmone bi euh, boo gasee un mètre cinquante da ngay teen man cee roose man a fóot mën ngaa xëy dem ca tool ba gas fa teen balaa mi di roose ca fóot root yu bale seen kër six cent mille laa ko jëndee Moustapha Diouf ngi may dégg duma bàyyi ma fenn loolu moom ci lu ma xam la man jënd naa deux hectares ci soixante quinze mille francs yaa ngi dégg jëlee naa un hectare ton pied dans la route mooy foofu ñu lotissé woon ca sama poulailler ba un hectare la manque jënde woon deux cent vingt cinq mille kon li may wax nii lu ma xam la fa ma jënde woon soixante quinze mille fay nañ ma ci cent vingt millions ma bañ xalaatuma koo jaay sax nag ab tool la dama koy bay mbirum suuf boo ko xamut xamuloo ko bari na koo yaakaar ne daa toog muy dox fekk toogul day liggéey bari waa na koo yaakaar ne dóorkatu martu la fekk moom talute ami martu bay dóori martu mais li waa ji wax nii tegu ko fenn jeune booba man jënd naa fa un hectare boo xam ne diggante ak tali bi ay trois cent vingt mètres lay tollool te da ngay woowaa tali bi wuyu dañ la da leen di gis ñu lay gis maa ngi ko jële six cent mille francs yaa ngi dégg nattal na natt naa ko ba defal ko plan cadastral waaye six cent mille laa ko jënde léegi suma ma fay boon quinze millions ñaata hectare laa fay am bala ngay critiquer nit ki ci li muy def da ngay xam li muy def waaye kii di wax nii xamut li joomaay di def xamu ci dara xam nga ne fu ñu jënd deux hectares soixante quinze mille boo fa demee di nga fa am suuf man gis naa trois hectares vingt mille francs ak saaku cinquante kilo ceeb gis naa ko maa gis bakkan lay laaj njënd moo xam ne yow domaine national nga fekk nga xam ne yoon jëndu ko sax nag da nga ko war a demande ñu jox la ko boo fekkee ay nit langin ko ne ñoo ko moom te fekk joxoo leen duñ la jox la nga leen di jox ba ñu jox la nga dem ca buur uti këyit te boo ko bowoon ak ñoom it ab forêt lay doon ba yëpp assuré waaye duñ ko bay loolu kenn du ko siise ci dara loola mi ngi mel ni domaine national buñ la jox waaye mbir mi boo ci xamul dara war cee wax dara. dafa am yoo xam ne nit ñi duñ ko duñ ko duñ ko maîtriser man 87 kër gi ma dëkk fanweeri mètre la yaatoo la guddee yaatoo ñaar fukki mètre ak juróom 87 laa ko jënd 2000 francs deux mille francs laa wax de laa ko jëndee quatre-vingt-sept ñu ne ma da ngaa dof fii ay deux cent francs lañ fiy joxe pour am kër tey jii de waxuma la loolu waaye quinze dix boo ko fi amee bëgg koo miite deux cent mille dangu mutation simple bi deux cent mille te man maa ngi am trente sur vingt cinq ci deux mille francs 87 léegi boo fi bëggee boo fi awee këru 15 10 waxuma li muy jar nga bëgg koo miite 200000 francs ngay lig ci kaas mbaa doo ko miite ci sa addina mooy doxee noonu 86 dem naa sali ñax-ñaxal seet sama benn xarit fël la papaam ne ma soo bëggee ma may la fii cinq soixante sur soixante carré ton dans l'eau maanaam soo ma bu ma ci bu damay dugg ci géej gi tey foofa quatre cent millions cinq cent millions pàkk boobu mayu la ko te gratuitement lañ ma ko doon may boobu dugub ba ngi ñor nii bañ góob ko ba leem ko mu ne ma boo bëggee boo ñëwee léegi waaye da nga ñëw dëkk fii su may gën fa laay dëkk ma bañ quatre-vingt-six la wax de nga xam ne booba sali gi gi tubaab bi tabax nii fii hôtel buy di ngay gis fii gis foo sori boobu kër du fa dara ñu nar ma faa may soixante sur soixante carré nga xam ne da ngay géej gi ma ne ko góor gi fii du ma fi dëkk booba nag yaa ngi taxaw ñuy rat waaye booba xam ngeen ne bu ilmul xëy bi amoon kon man maa koy kon gaa yi wax naan <laughs> lii dana xew laa dana xew raw ñu ma ci li ñuy wax waaye xaw ma woon ne foofa dina mel noona da kon ñu may gratuitement lañ ma ko doon may moo tax bari na loo xam ne domaine yooyu nit ñi dañ ci dugg di wax waaye du ñu xam naka la demee suuf moom ak soppeekum dafa yomb dafa yomb lool waaye ñu bari xamuñu ne suuf ak soppeekum dafa yomb am na zone yoo xam ne kër jinni jaru ko fa axanaa nga boole ci yu bari di ko béy ab tool waaye bala laa amal njëriñ dana yàgg waaye am na zone yoo xam ne boo ko nekk boo boo fa ñëwee fekk mu nekk ak ndànd foy foyit soo fa mënee am kër na ko fa am ndax doo ko perte doo ko mën a perte moom da ngay da ngay bénéfice mais doo perte waaye état hectare yi nja ay nguur soosu monsieur le président hectare yooyu muy wax te doon ko wax ci bi muy def déclaration patrimoine bu la waxoon na mu def na mu def ba am hectare ak lam ca joxe ak jamono jam koy am booba sax dañ koo nax waaye mënoon naa gën a yomb sama sëriñ suuf moom ku koy jënd ngir jaayaati ko moom mën naa nekk boroom xaalis waaye nag nun la suñ saali waxoon ne suuf boo fi maam aadama di ñëw mook soxnaam rek a fi nekkoon léegi nit ñi dem nañ ci juróom-ñaari milliards te suuf si yokkuwul dara moo tax luy ñuy yokk bu ñu bokkee lu dul yokk loo ca am da koy téye ndax boo ko ñàkkee doo ca jotati ñun loolu lañ gëm maanaam suuf moom liggéey ko lañ koy doyee liggéey ko lañ koy doyee boo gisee léeg-léeg may yee nit ñi di waxtaan ak ñoom di wax te man sama carrière rek laay wax ah, su ma dee nettali ci yeneen i carrières yi jàmbur mën naa nekk lu dul dëgg <laughs> waaye maa def nangam moom te ñu te te ñëpp di dégg boo deful loola dañuy wax ne kii waxul dëgg deful loolu waaye li tax xale yi ñuy jara yee te ba léegi yeewute leen xanaa xamoo ne hectare suuf boo xam ne fa mu nekk daa xaw a dëgër te ndox soriwu fa walla nga mën a am ndox mu mu fa jaar lu mel ni ki robinet nga mën a am goutte à ba mën faa liggéey un hectare kaani mën nga koo béy ci un hectare nga génne ci trente millions trente cinq millions ci kaani gi kese kaani gi dong mën nga koo bay nga génne ci trente millions trente cinq million ci xaalis waaye nit ñi xamuñu ne suuf si am na loo ci mën a jëlee xamuñu ko toolu toolu deux hectares boobu nga xam ne dañ ko doon estimer ci soixante quinze mille que soixante quinze mille boo ko béyee première mbey mi nga rijji ko ca lool ca noor ba def ko neefare ak fii ak lépp bay ko dugub génne fa deux tonnes nga toog di toog di toog ba cooran jot ca jooja jamono mooy jamonoy seblaat ca atum njëriñ ya deux tonnes yooyu soo ko mënee jaay kilo bu nekk deux cent franc dangay am quatre cent mille soo ko mënee jaay kilo bu nekk deux cent cinquante booba jamono bu pepp mi seere ba kenn mënu koo laal deux cent cinquante lay doon wala deux cent franc boo ko jaayee deux cent cinquante da ngay am cinq cent mille boo ko jaayee deux cent franc da ngay am quatre cent mille te terrain bi nga bay génne ci quatre cent mille soixante quinze mille la la la dikk est-ce nga pertuloo ca déwén sa ma béy ko gerte muy atam njëriñ ya ma dem Touba njëriñ wàcc ci Gandigal ma korosé fi ak ñoom befet bi njëriñ yu ndaw yu mag yi amul woon problème befet bi bi mu ñëwee dafa fees suuf si tepp man sama tool gerte gi dañ ko lekk ba mu defu ngànde foy foy ma gàddu sama pulvérisateur yóbbu sama lii li ñuy wax menu con la xam ma bay la con mooy produit yi ñuy reyee njëriñ maa ngi fa dem ay six heures fajar befet yi mënuñoo naaw te feeg naa ji tàngul du ñu dépasse di dox daanaka tool ba yëpp dama ko pompe lama ma pompe yëpp daa dee gis nga ci noor bi tool bi daa niin batt mel ni da nga fa sotti diwlin gerte gi ay meer a ko jeex mais dama ko pulvériser lépp rey rey befet bi gis nga ba ma fa bayaatee dugub la ma fa amoon ñettam laa fa am te njëriñ yi befet bi ma pompe ñu dee ci tool bi des fa ñooy sama engrais dugub jooje befetu njëriñ yi ñoo ko engrais deuxième round gerte ga dikk raw fa waaye xale yi dañ dul xam ne état li rek du ab liggéeyukaay fu bari wata nag rafet rafeti taax am ay jongo way rafet ak tubaab bi kiicër kiicër yi waaye mën ngaa liggéey te doo fa dem waaye nag xamuñu xamewuñ ko noonu mais bari na loo mën a liggéey ci réew mi mu génn fi dara waaye ñu bari xamewuñ ko noonu papa yi ji ngay gis rek am na benn waaye bu ko doon wane ci télévision bi papa yi ji ngay gis rek xam nga papa ak moroom nga moom deux mètres deux mètres deux mètres cinquante mën na koo sorente deux mètres deux mètres cinquante boo ko jëmbatee ci sa toolu hectare ba mu daj ñaata ñaata taat lay doon boo ko soreelee deux mètres deux mètres day di nga am dix mille taat euh, euh, euh, di di nga am di nga am cinq mille taat na dix mille mètres carrés moo di hectares papaay bi bu sorantee par deux mètres deux mètres di nga am cinq mille pieds su fekkente ni da ko sorale quatre mètres quatre mètres di am deux mille cinq cent pieds deux mille cinq cent pieds bu ku nekk génnee dix kilos kilo bu nekk jar deux mille ñaata la te xam ngeen ne papaay gu meññ ñaari doom ëpp na kilo kon waxuma ne day génne di kilos benn taatu papaaya mën naa génne quinze kilos waa léegi soo amee deux mille cinq cent pieds de papaaya benn bu nekk génne dix kilos kilo bu nekk nga jaay ko deux mille ñaata la ci xaalis waaye nag loolu xale yi nanguwuñ ko mën nañoo dem nag yi ab tubaab labur suuf jël leen ñi di fa bay nekk fa nag daanaalal baykat yi tubaab ya waaye mënuñu ko def fii ci senegaal te nawetaan gi ngeen di nawetaan di football daal nawetaan ci àll bi bay da koo gënoon a yomb waaye mbay am naa lu ci nekk de man di dama ko mënutul ndax mag laa te samay doom nanguwuñ koo def waaye man lu ma am ci àddina dem ca tool ya bay moom ma ko gënal waaye benn hectare kaani boo xam ne da ko guta gut amal sax robinet waaye nga guta gut ko jëmbët ko ni mu waree ba hectare bi daj kap période yi bi nga koy bay nga xam ko man nga ci génne trente millions ticcit kaas ay takki million ba muy trente yi tegaloo mën nga ko génne ci benn hectare bi waaye nit ñi ñoom dañoo yaakaar ne gor fii ba ndar gu ndaw boo dikkee takk façon pënd ba ne kur ngay rajax rajaxi ci la ci la mbéy mi nekk mais am na système mbéy yoo xam ne ku koy doxal te xam période bi nga koy def doo faale ku génn bitim réew te li nga bëgg mën nga koo am ci mbéy waaye nag nit ñi xamewuñ ko noonu bari na bari na bari na ñu mën a amee xaalis bu yomb sax te ci àll bi nga koy utee mais àll bi nag moom wax dëgg làmp yi leer dafa nekkul ah télévision yi ñu seetaan ah léegi sax am na fa ndax léegi làmp yi dem na fépp waaye bu njëkk nag ma lut woon noonu waaye suuf moom euh, ak loo ko mën a jaaye ak lu mu seer seer soo ko xamee niñ koy liggéey bala nga ko liggéey juróomi at man nga caa génne la ko naroon a jaay suuf sa def fa nga moom ko ba léegi nun kay li nu rey du du du du ñàkk a liggéey politiciens yi taxaw ci suñuy nopp kay di lotise suñuy tool di ko daggi kër di jaay ak a jox nit ñi ñooñu rey waaye ku nu bàyyi suñu bopp du xalaatinoo jënd suuf di ko jaayaat waaye dañ koy liggéey suuf mën nga koo liggéey di ci dund ba génn àddina sa doom di ko liggéey di ci dund ba génn àddina sërsët di ci liggéey di di ci dund ba génn àddina te saa ñu ko jaayee mu double la la la nga ko jëndee woon waaye nag ñu bari xamuñu ci loolu waaye man de lu ma am ci àddina mbéy ma ko gënal a ma taxoon a bàyyi géej way ñëw ñëw Gandigaal waaye li may conseil gone yi de mooy mbéy mii de am na lu ci nekk de ci ko su fekkente ni jàppale nañ leen ngeen def embouche bobine ngeen def eh, li ñuy wax yaram ginaar boole koog mbayam roose ak mbayam nawet bala ngeen a dem juróomi at du ngeen faale te kenn ko dem bitim réew te la ngeen bëgg yëpp di ngeen ko am fii ci seenam réew nañ fexe ba ba réew mi am ndox bañ mën a bay noor mën a bay nawet système mu mbay bi ñu jàngal ko gone yi xamal leen li ñu mën a bay mu bari te du yaatu xamal leen zone bu nekk ak la fa lañ fa war a bay ak suuf si dee nu koy dekkal loolu buñ ko xamee rek lee ñu dem suñu yoon waaye nag nit ñi nanga wuñ ko nanga koo xam léeg-léeg damay nettali sama carrière pour ñu bëri xam ne euh, fu waay nekk te liggéey bala fa rek bu yàggee la nga bëgg da ko am li may wax nii jamono jama cay toll di ko def boobu joxee gu may garab ay quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept laa tàmbale joxe garab fekk li may li ma téye ci loxo lépp téye naa ko waaye nag damaa xaar ba mu am mais am na ci bari yoo xam ne xale yi duñ ko xam